alhamdulillahi alkarim sinan ala istiqaali bi furud wa sunan sakartu li'anna qad saxani liwatani bi nafa maaqani waxaadani ilay bitaani min baadi ma sabab taxaani wa jarani fi ilal jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen euh, rubrique euh, Touba ma yónni mbokk yi seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll dellusiwaat na ginnaaw bu mu leen jégguloo balu leen ak bal leen ak ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal bal ñu mbokk yi xam ngeen ne bëroon nañ lu toll ci ñaari weer ci seen émission bii di Touba ma yónni waaye lépp nag déglu ndugalul Touba rek la. fomm nañu jëm leen fa rek ñu jëm foofu kon mbokk yi tey dii di samedi Touba yónni waat nañu may nuyu bokk yëpp di jaajëfal bokk yëpp di gërëm bokk yëpp ci seen eh, télévision bi di Assalaamy TV lëkkaloo ak seen seen YouTube bu Assalaamy TV waaye ngeen ñu bàyyi xel ci seen rajo Assalaamy FM 99 point 0 mbokk yi ñu del si waat ak yéen ci seen émission Touba ma yónni di leen nuyu di leen ziar di jital ci nu nuyoo bi Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha ñaanal ko suñu borom mu yàggal ko fi lool doole ak wéram waaye ñaanal mbooleem njabootu Serigne Touba Xaadimu Rasuul gépp teg ziar boobu ak ñaan gi ci loxol jëwriñam Serigne Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad waaye jaarale ko ci Serigne Bachir mu Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yore seen kàddu mbokk yi suñu diggante ak màggalu Touba ñaari weer yu manqué moo fi des ku ne xam ne ne waxoon nañ ne màggalu Touba ren jii ci digg nawet la ñuy fekk. te ku ne xam na ne màggal gu am jafe-jafe lay doon ci wàllu assainissement ak ndox ak la ca aju ak tali yu yàqu mbokk yi gouvernement bi fi jóge woon doon nañ jéem lañ man doonte matalu wuñ lépp gouvernement bu bees bi fi nekk jëloon nañ ay engagement mel ne xam nañ jafe-jafe yi Touba waaye mbokk yi nag ndimbal da ciy fekk sa loxo mbokk yi ñu doxantu dem ci daayira bu mag bii di nooru daara yi nii Touba ca kanam muy daayira boo xam ne sunuy ñaar téeméer ak seeni ñaar téeméer lépp luñ defar ci dëkk bi moo ñu ko defaral daayira boobu nag ñoom ñi ngi gàttandu li nga xam ne moo di màggalu Touba ngir waajal ko ci opération defar yoon yi mbokk yi maa ngi ci tëli boo xam ne mi ngi jógee garaasu Dakar romb isin xorom di corniche bi jaar jumaa yi Serigne Cheikh Saliou wuti Madiana wëri ba dem ci gaaru sa Daarul Moxti waaye boo ñëwee ba fii ma tollool ku ne xam ne ne jafe-jafe bu mag amoon na fi muy tëli bu yàqu ak ndox muy taa léegi nag maa ngi ñëw ànd ak waa daayira Touba ci kanam dalal leen mu di ñoo xamante ni bii entreprise la ñu yor bu mag waaye di ay jàmbaar ci Touba ci kanam muy Serigne Mouhamadou Dieng taalibe Serigne Touba Xaadimu Rasuul la yor groupe lawal bi nga xamante ne bii engagement yi muy jël lu bari ci ay ay rajo ci Touba moo ko liggéey lu bari ci ay e, duudaan dana ko liggéey waaye lu bari nag ci ay yoon opération defar yoon yi dana ko liggéey ci dëkk bii di Touba muy entreprise bu mag jëm di yëngutu ci wàllu bâtiment ak la ca aju ma taxaw ak monsieur Dione mi nga xam ne mooy chef de chantier bi damay bàyyi ak ñoom ñu nuyoo wax leen engagement bi Touba ci kanam jël ngir defar jafe-jafe yi gàttandu ci état bi nga xamante ne bii ñoom la war ngir waajale ko màggal tubaa yoon yi nga xam ne yàqu nañ su ko defee incha allahu rabbi bu émission bi daanoo danaa yaatal jotaay bi te ci 88 628 53 53 laaj leen ci seen i xalaat kenn ku ci am xalaat itam nga mën koo dugal si ci seen émission Touba ma yónni kon monsieur Dione bisimilah Serigne Mouhamadou Dieng bisimilah su ko defee ma nuyoo ak yéen laaj la taxawaayu daayira nooru daaray ni Touba ci kanam ci opération defar yoon yi kañ ngeen ko tàmbali ban programme ngeen jël naka ngeen fas yéenee gàttandoo li nga xam ne moo di nawet bi su ko defee buñ noppee nag ñu ñëw nag ci chantier bu mag bi nga xamante ne bii group lawal gagné nañ ko ci tubaa ci kanam ngir defar yoon yi ànd ak monsieur Dione mu leeral ñu liggéey bi naka la tëddee kon ñu bàyyee kàddu gi ak Serigne Mamadou Dieng mu leeral ñu li nga xam ne mooy taxawaayu Touba ci kanam ci opération defar yoon yi ki ne ci wàllu machine bi Mountakha Bala waaye ki nekk ci réalisation bi Abibou Thiam lay doon seen mbokk talibé Fallou Galassi ci micro bi ñu ànd ak waa daayira Nooru Daarayni Touba ca kanam. asalaamaaleykum yéen mbokk talibé yëpp. ñoo ngi leen di nii di leen ziar di leen gërëm eh, ci taxawaay bu rafet bi eh, ci liggéey bi nga xamante ni Touba ci kanam sumb na ko muy opération defar yoon yi eh, yàgg na ko commencé nag depuis ñetti at ci gannaaw am na opération defar yoon yoo xamante ni bi toujours saa bu màggal bu jub see rek la koy lancé léegi nag opération defar yoon yi Touba ci kanam moo ko lancé Touba ci kanam kuréel gu am solo goo xamante ni bii Euh, ñëpp war nañ koo xam ndax euh, bi màggal gi jub see opération defar yoon yi dafa am quatre sites yoo xam dañ ko lancé bii ñu nekk euh, deux cent deux cent trente sept mètres cent trente sept mètres hmm. am na beneen site bu ci sës bi mooy daaru daaru minam bi ci sës mooy xayra am na boo xam ne station sel bi nekk ci corniche daaru musti bi ak beneen ci euh, beneen sit boo xam ne mi ngi euh, hôpital Jéemul yooyu nag Touba ci kanam euh, bi mu xoolee ba xam ne yii la fi war a defar pour balaa màggal gi jub muy site yu am solo yoo xamante ne bii nit ñi dañ koy soxla woon lu baree baree bari bi mu demee yàqu-yàqu yu bari nag Touba ci kanam ñëw jël ay engagement woo ay entreprise woo leen def benn appel d'offre boo xamante ni bii dafa woo entreprise yu bari ñu ñëw fii nag fii nga xamante ne fii lañ taxaw mooy site bi ci gën a am solo mooy site bi ci ëpp mooy cent 237 mètres yi moom Lawal groupe moom moo ko gagné bi mu ko gagné nag euh, maa ngi taxaw ak euh, technicien bi nga xamante ni bii di chef de chantier bi moo jiite Lawal groupe ci liggéey bi bisimilah. bëggoon nañoo xam Touba ci kanam tout bi mu génnee ngir def ko ci opération defar yoon. waaw budget boobu nag euh, man. mënuma koo teewlu ndax waa finance xam naa ne ñoom ñoo ciy mën a leeral lu bari euh, waaye bu dee coût bi moom faaw dana delluwaat ci waa finance ñoom ñu kii parce que Touba ci kanam bu lay liggéeyaloo matériel bi la lay jox main d'œuvre rek la main d'œuvre la lay fay mooy jënd matériel am andi andi ay ingénieur am yu lay contrôler mais moom euh, seen coût nag bu ko defee main d'œuvre ñun la ñuy mën a xam mais ñoom coût bi yëpp waa finance ñoom ñoo koy xam quoi. kon Touba ci kanam daal du la liggéeyloo rek ñëw nga jënd sa matériel indi si suuf non non. non non kanam fokk nag comme que ñëpp ko bokk faaw muy xool li gën a moyen ci moom. ndax fi mu toll nii bu fekkee daa dem entreprise yi fon jox ko fourniture épouse bu boobaa dana xaw a seer ci moom ndax. Touba ci kanam quantité bi muy jënd bu demee ci mën naa dem directement ci usine ba mën nañ ko wàññil Euh, te bu dee entreprise bi mën na ko bañ a wàññi bu dee magasin bi mën na ko bañ a wàññi looloo tax moom toujours euh, main d'œuvre rek lay fay. asalaamaaleykum maa ngi leen ñu nuyu yéen mboolem mboolem téléspectateur Assalaamy TV ginnaaw ba ma leen nuyoo ba noppi maa ngi mën a présenté sama bopp maa ngi tudd Makhtar Dione du technicien supérieur géomètre topographe. spécialisé si route ak euh, pont et chaussée bon en fait ñoo fi nekk fii si site bii ñuy wax ni site Daaru Minam ab site la boo xam ne Touba ci kanam moo ko lancé si opération defar yoonam yoon wi nga xam ne moom lay xel di lancé sa at mu ne diiru ñetti at ni ñu ngi si boobu ak léegi ren ji ñu jotoon lancé juróomi sites yi nga xam ne ginnaaw ba ñu ko defee ab appel d'offre mu am entreprise local ak entreprise euh, régionale yoo xam ne jot nañoo see bokk si offre euh, appel d'offre bi yàlla dogal ne group bii di group Lawal di ab entreprise boo xam ne euh, spécialisé si génie civil euh, BTP ak euh, assainissement ñoom ñoo gagné site bii bi nga xam ni moom leen taxaw nii muy site Darou Minam bi ab site la boo xam ne mi ngi toll si 237 mètres linéaires li ko war a liggéey en radier submersible de 3 mètres 50 de part et d'autre parce que ku wax radier subversif dañuy wax euh, demi chaussée lañ koy liggéeyee demi chaussée bi 3 mètres 50 la à gauche 3 mètres 50 la à droite boo xoolee chaussée bi entier daf mi ngi ànd ak benn bêche boo xam ne de 20 lay doon buy ancré wu ci biir sol bi bu mën a euh, assurer stabilité wu radier bi comme que fii zone ndox la te dafay bëri lool lool ndox dafay baaxawo ñuy stabiliser suñu ouvrage bu euh, bêche bi jàllee si la radier bi soog a ñëw ab épaisseur de vingt centimètres lay doon en latérite et à Safura euh, euh, am na un couche de remblai euh, boo xam ne ñu ngi ko def pour stabiliser sol bi comme que zone ndox la avec du matériel GNT muy grave latérite non traité bi ñu tegoon ko ci épaisseur de vingt centimètres soog a apporter radier submersible bi nga xam ni moo nekk en béton armé ñu ngi ko armaturé avec du H12 espacement vingt centimètres en double lit suivi d'une euh, trottoir boo xam ne moo siy topp boo war a toll ci vingt centimètres ñu soog a indi ab trottoir de un mètre cinquante de part et d'autre si ñaari wàllu yu ne bu si ne dina am trottoir war a toll ci un mètre cinquante lool dina faciliter mobilité wu piétons yi ginnaaw bu ñu lijjanti mobilité euh, kii automobile yi donc euh, loolu day daal di faciliter dem bi ak dikk bi ci fanu màggal bi ku ne xam na ni màggal ren si nawet lay tombé baaxoo na ñu tenir compte lu ñu mel. ba tax na boo xoolee fu mu toll ni travaux yi ñu ngi ci avancement bu baax a baax a baax baax ak équipe bi ndaxte bañ commencé ak léegi ñu ngi toll si 19 jours de travaux ginnaaw boo ci ñu si génnee ci fête yi nga xam ne moo fi jaar si diggante bi muy tabaski ma profité waale di si baalu àq di baalu àq ñëpp waaw te xamal ne ni entreprise bi groupe Lawal ménagé wu benn effort pour sàmmante ak délai yi non seulement pour sàmmante ak délai mais pour bàyyi xel qualité bi nga xam mooy ouvrage bu muy liggéey. parce que Touba ci kanam du la jox marché rek fournir la matériel ba pare bàyyi la sa bopp nga dem def lay boole ak ay techniciens yoo xam ne ñoo lay topp di la contrôler dina la contrôler ci wàllu armature yi dina la contrôler ci wàllu BA bi di la contrôler aussi ci wàllu exécution bi surtout surtout euh, mise en œuvre beton bi côté boobu moom farlu nañ si bu baax a baax a baax a baax a baax te boobu ak léegi nag ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi nag alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant bu baax a baax suñu borom fi mu toll nii boo xoolee travaux bi 237 mètres yi à l'heure actuelle ñu ngi war a toll presque à 45 pour cent d' exécution actuellement fu mu toll si travaux yi donc. Euh, lu jëm ci wàllu assainissement. Mhm. waaw ci wàllu assainissement ku la wax ni fii nii zone bi dafay zone boo xam ne bu bëri ndox la donc pour assainissement dañoo lancé dañoo placé benn jalon boo xam ne jalon provisoire la pour éventuellement bis bu amee réseau assainissement dina fekk ñun fagaru woon faggu woon nañ Euh, kii bu mel noonu structure bu mel noonu moo tax boo xoolee rajo bi dañ ko xaaj ñaari xaaj ñaari xaaj yoo xam ne bu si ne dugal leen fa benn euh, section tuyau de DM400 euh, traverse traverser largeur sochet bi yëpp amuñ euh, regard de visite de euh, à gauche ak benn regard de visite à droite buy mën a permettre jii bis bu ndox mi affluence ndox mi dem na ba toll noo xam ne mi ngi bëgg a jaaxal usagers yi immédiatement service des sapeurs pompiers mi ngi fii comme ni mu ko daan defee dafay daal di ñëw jël ay pompom samp ko si biir regard yi mën a xëcc ndox mi lancer ko si réseau ONAS bi nga xam ni moo ñu jige fii si Daaru Minam bi. naka ngeen def ak waa euh, OFOR ak waa ONAS. bon boo gisee liggéey bi dañ koy def en synergie avec tous les corps euh, yi nga xam ni euh, moom leen euh, war a sëkkal lu mel ni Ageroute tout récemment waa Ageroute jaar nañ fi visite des chantiers ànd ak préfet ak sous-préfet ak maire dëkk bi ñoom ñoo nañ fi ànd ak waa ONAS tamit waa groupement sapeur pompier aussi ñoom tamit ñu ngi woon fii ci visite bi jot nañ def visite bi pour mën a tirer. yi nga xam ni moom mooy euh, remarque yu njëkk yi nga xam ne moom leen mën a def si wàllu exécution bi avant que ñu war a mën a ak ak terme lépp loo xam ne subjection la defal nañu ko te déggoon nañ seen digal si loolu si subjection yi lépp loo xam ne lu ñu war a apporter la dinañ si apporter lépp loo xam ne itam lu ñu si war a dindi woon la incha allah rabbi dinañ ko def ko dinañ ko dindi seen diggante alhamdulilah loolu moom ñu ngi ciy sant bu baax a baax waaw service corps d'état yëpp moom euh, ñu ngi ci en parfaite synergie ak ñoom waaw هساويني اليوم يا وابو خيرك في دارين لا أحاب وإنني يا بر يا كريم داين وعن شكرك لا أريم منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك والرديت عنك مفودا مسلما إليك أمري معاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجد ثرواك فجدت لليوم بخير مني وقتني إلى اختفاء سنين من بعد ما قدمت داء الناس يدخلني في سرك الخنازير